c'est compliqué ah c'est compliqué. c'est compliqué waaw Dakar Dem Dikk c'est trop compliqué. Hmm. xam nga ñun euh, on bu état di utiliser pour sénégalais yi mën di déplacer wu. fu mu munti nekk ci Dakar ak Sénégal. Hmm. donc c'est un instrument de la mobilité urbaine. Hmm. waaye nag heureusement actuellement 22 ans mënuñu jouer notre partition par rapport. ak convention de concession bu ñu am ak l'autorité concernée mooy état ak cahier de charge bi ñu lii ak CETUD. ndax 22 ans d' existence mënoo atteindre sa vitesse de croisière. Sénégalais mu ñu ci gis seen bopp ça pose problème. Mhm. xam nga Dakar Dem Dikk daanaka wax sax société publique yi fi jaar yëpp ñoom ñoo nekkoon concessionnaire service public yi. Mhm. boo ko jëlee jamono garage du gouvernement. Mhm. boobu ay bus estampé ak Renault 1000 kilogrammes mooy genre car rapide la woon. avant Sotrac doon daw. personnel administratif la doon yóbbu. ñu jóge ci loolu ñëw ci régie des transports maliens boobu Mhm. mu éclaté wu ñu tas ko jóge foofu créer régie de transport sénégalais muy transporter RTS jóge ci RTS ñëw ci Sotrac 71 ba 98 mu tëj ndax empreinte politique bi dafa demoon dugg ci à partir de 96 ba ñu presque les moitié de la moitié des salariés yóbbu leen chômage technique ndax problème yoo xam ne d'ordre structurel ndax politique moo ko engrangé ñu jóge ci loolu ñëw ci Dakar Dem Dikk Abdoulaye créé ko en 2001 ça fait léegi 22 ans ba léegi les mêmes difficultés ñooy surgir parce que société bi souvent dañ ko politiser à outrance te les gens teg ci société bi c'est des hommes yi nga xam ne amuñu expérience sur le plan professionnel tànn bi leen di tànn c'est sur le base engagement bi ñu am vis à du chef de l'État c'est sur le plan politique malheureusement bu ñu ñëwee dañuy fàtte lan objectif moo leen fi teg redresser rehausser le niveau de cette entreprise là mm-hmm. mais souvent dañuy am temps boo xam ne dañ koy consacrer uniquement à la politique. fàtte la gestion classique de cette entreprise là moo tax ma ne la sànq ci njëlbeen dañu nekk ci situation de quasi faillite c' est une situation insoutenable dañuy subir les conséquences au-delà des travailleurs c' est les usagers en général mooy la population sénégal utiliser les moyens yi nga xam ne état moom la fi teg pour ñu déplacer tu pare parce que Dakar dem du muy transporter nit ñi tarif yi mu am c' est imbattable tey Dakar Dem dafa mel ni existé wul. et les gens souffrent énormément parce que. imaginez aftu. les prix dañu exagéré ci prix yi ba mu ëpp. aftu 5 kilomètres ils te le vendent à 200 francs. imaginez 15 kilomètres ils te le vendent à 400. ñun on te vend 30 kilomètres à 200 francs. Mm-hmm. Dakar Dem ñoo fi dese bu 100 francs. Mm-hmm. dans le secteur du transport. Mm-hmm. tu quittes Guédiawaye au centre ville tu payes 175 francs. tu quittes Wakam Cap Manuel tu payes cent cinquante francs mais prix yooyu c'est à la bourse de l'ensemble des Sénégalais. dëgg mais tey le projet BRT bu commencé daw tu crois que Sénégalais bi ñoo ko mën dugg jëlal terre bi prix bu ci ndaw cinq cent francs la est-ce que c'est la bourse de tous les Sénégalais. Mm. aftu mu ñëwoon nga xam ne privé lañ mais dañuy def un service public mais tey état contrôlé wul nu ñu yokkee prix c'est exagéré. imaginez le Sénégalais qui quitte Niaga pour aller à Poste Thiaroye il paie 600 francs mais kan moo ci mën a dëkk. tu as dit jël bus Dakar parce que gisatuñu Dakar dem dikk. ils prennent aftu. mën nga fayal xale bu nekk 2000 francs par journée ci transport. Mm-hmm. kooku ak pouvoir d'achat moo tax thème bi euh, calme avant la tempête euh, par rapport ak défi front sociale bi dafa am solo mm. parce que tey bi ma liggéeyee ci journaux ñu ne ma xool effet bi mu ne ma. la croissance mhm. passe de dix virgule trois pour cent mhm. à huit virgule neuf pour cent moo lay wan ne baisse la ñu ne la le taux d'inflation mhm. jóge na de deux à trois virgule neuf pour cent mais ñun sénégalais yi fan lañ jëm par rapport à cela mu nekk une inquiétude bi ma gisee tey ci journaux yi encore ñu ne ma le président dafa dem sax à Bruxelles sur l'invitation de euh, mooy présidente de kii Andala mu tudd sax Union européenne par rapport à voilà Van der Leyen sur mm. l'invitation mm. ñu ngi nekk ci initiative globale Gateway yi nga xam ne day jéem a appuyer le secteur de la santé du transport et de l'éducation ñu ne dafa développé dafa euh, dégager une enveloppe de cent cinquante milliards pour aider les pays de l'Afrique ñu ne ci biir loolu même le projet BRT bi nga xam ne ci transport fa lañ ko inscrir war ci def trois cent six milliards te BRT juddoogul déjà mu ngi commencé recevoir ces véhicules ñun on est là 22 ans on nous promet des véhicules depuis 2020 on avait 958 véhicules depuis 2007 à aujourd'hui daanaka on a moins de 100 véhicules qui circulent sur l'ensemble de notre réseau urbain et interurbain 58 véhicules cela veut dire on avait 558 véhicules interurbains et 400 bus urbains lépp tombé na en panne à cause d'une mauvaise gestion à cause de matériel de maintenance vétus à cause aussi des charges du personnel ki hypothèque l'avenir de cette entreprise-là. Mm cause aussi d'un recrutement clientélisme bi nga xam ne dafa hypothéquer l'avenir de Dakar yi parce que charge salariale yi dafa ëpp recette liée à l'exploitation parce que état bu mu ñuy créer newuñu newuñu def leen ay profit yu rëy mais dafa ne assurer ma équilibre bi mooy équilibre masse salariale et chiffre d'affaires. Mm -hmm. équilibre homme bus ñaata bus ñoo mën a fay ñaata salarié. équilibre recette d'exploitation et charge déclarable équilibre capitaux propres ak capital social imaginez ñun suñu capital social 22 ans après après c'est à 1 milliard 500 Côte d'Ivoire Sotra mooy comme Dakar Dimdik moo nekk Sotra mooy société de transport abidjanaise mm-hmm. imaginez en 1983 leur capital était à 3 milliards je vous dis en 1983 ñun on est en 2023 notre capital est à 1 milliard 500 notre capital social est à 1 milliard 500 ñoom ñoom en 83 il était à 3 milliards. 3 milliards en 2023 notre capital est à 1 milliard 500. société bu bëggee développer di continuer à recruter mënul survivre comme ça. li may wax ni c'est un constat du ministre Habib Sy bi fi nekkoon au temps de Abdoulaye Wade.